Euh, foofa doon senn ñuy jël ay architecte di woote di kii ba mbir mi daal di dox di dox ba ni toq ci nopp benn doomu baay bu tudd Cheikh Abdourahmane Ibrahima Niass bi mu déggee loolu rek mu ni fi daal soxlawu sax di préparer wala di réparer étanchéité nanu daaneel kër gi reprendre ko def ko zawiyee carrément ci la ñu génnee néeg nekkoon ci suuf yëpp ah def étage bi ci kaw def ay néeg ñu commencé ko ñu def ko zawiya ba mu mel nii tey waaw vraiment bu mel nii tey ñu ngi koy gërëmee di ko sante Cheikh Abdourahmane Ibrahima Niass bi nga xamante ni moom moo moom moo woon loolu. kon mën nañu si biir. bisimilah. voilà mbokki téléspectateurs yëg si nañu nag fii si toogaay bi tabarkàlla fi nga xam ne moom mooy si biir zawiya bi gannaaw bi ñu si bunt bi ki nga xamante ne moom mooy Mokhtar Niang sëñ Mokhtar Niang ñu fa yéene ànd ak moom mu ngi nii moom itam waaye ki nga xamante ne mooy kilifa gi itam yëg si na di Cheikh Baye Niass moom itam ñu fas yéene ànd moom euh, bu ko defee ñu gën ñu waxtaane kan mooy Baye ñas kan mooy Cheikh al Islam kan moo taxawal kër gi kan la ñuy wax ki nga xamante ne mooy fondation bi nga xamante ne dañ koy faral di wax Baye l'international ñu fas yéene nag wéyale suñu émission Ëttu diine yi waaye comme xam ngeen ne autorail bu jubee gare day cornet te bu ñu duggee ci zawiya eh, surtout bu ñu nee ñaseen rek ñu xam seen baat bu neex ci zikkar macha allah dañ leen di bàyyi ñu ubbee loolu bu defee bu ñu paree ànd ak kilifa yi ci waxtaan bi inna xatmal anbiyaai faaqa arsal anbiyaai bahru sirri wa sanaa'i samsu rusudin waqtidaai جنة القلب امتدائي لملاذي وصرائي دائما فيك ودادي وذكاري وفنائي هام قلبي طال وجدي وزفيري وبكائي وحنيني واحتراقي في صبائي ومصائي زارني طيف خيال من حبيبي عينها حل في القلب مكانا مستحيلا لسوائي طل من دون مقامي وحياتي من دمائي ينقضي حم صوائي وهو حمي صوائي كان فخما ومهيبا ومليحا ذا صفاء لا تراسب المقفى فهو سين قبل رائي مدعو سي ورائي قربتي باين ورائي نعمه عبدا تصامى فله سير اللوائي صفوة الأحق حبيب الله كنزي وغنائي أعضلي في أراه في جنوني أو شقائي فاستغال باستياقي في فوزي واختلائي دامني من لام سيقا هام منها إن وبائي قد تصلى بعد شيب أهل حلم ونحاء رشدا والله إني طول دهري في أمائي سوف أبنى وغرامي في المفدى ذو بقائي توقاني وأيامي بهجتي وبهائي ذل الحب عشير كتمه عند الملاء خلة من ذي ملامنا فاثر من آن بالجفاء ذل أحل حب أحلى من وصال وعلاء إن قد مل الأنبياء فاق أرسال الأنبياء macha allah dégg ngeen ko ni mu ubbee noonu mu am solo lool zikkar yooyu ku ko xam-xamee ko fii nga xamante ne fi dañuy ñëw muy ñaseen ñu fas yéene nag ànd ki nga xam ne mooy kilifa gi bu ñu nee kilifa gi nag mooy Cheikh Baye Adi ibnu Cheikh eh, Cheikh Baye Adi ibnu Baye Adi ibnu Cheikh al Islam eh, tabaarkàlla kilifa gi mu ngi nii toog moom lañu fas yéene àndal eh, wax si maamam nag xam naa du du jafe parce que sët mooy doonu maam Cheikh Baye Adi ñu ngi lay ziar baax a baax a baax a baax ñas Kumba Abdallah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala ñu ngi lay delloon yow ak ziyaara waaye di nuyu ñuy seetaan yëpp ci àddina bi di nuyu télé 7TV euh, waaye tamit di nuyu soxna si nga xam ne mooy soxna mooy mun a di borom télé bi ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla may ko wér yàlla yàlla saafara ko yàlla musal ko aar ko ci barke weeru koor bi gannaaw bu nuyoo àddina bi yëpp ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo leen fi fekk rawatina imaam mi nga xam ne mooy imaamu jumaa ji maam ñes ñu ngi lay nuyu di lay ziara di lay wàccee sa wàccuwaay di nuyu Muxtaar ñaŋ mi nga xam ne moo ñu dalal fii waaye di nuyu bëgg baay bu baax di koy di am mbégte contentement di teew ak yéen waaye di nuyu Zakir euh, Cheikh Ahmed Kane waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ànd ak du Ba ak euh, Silla euh, ñu ngi wax jullit ñëpp ramadan mubarak kul aamu antum bi xeyr كل سنة وأنتم طيبين عاده الله علينا سنين عديدة مع الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في جميع الحركات والسكنات بجاي سيد وجود صلى الله عليه وسلم tey ñu ngi dalal 7TV fii ci Jëppal di kër Maulana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass nga xam ne mosu fee bugg kër ndax fi mu daan wàcc ñun ñëpp xam ne ko muy zaawee Cheikh Omar Kane wàcc na fa lu yàgg ay at ba taalibe yi xatatuñ fa mujj si taalibe yi na ko sëñ bi kat fii barab la boo xam ne ne yaatootut pour yow mun sañoon nga ut barab ci la Mawlana Cheikhul Islam Hadj Ibrahima sàkku barab bii 1957 defoon ko këram nag ndax mosu fee bugg zaawiya Baay Ñas ci yaax dënnam ak ci mbaaxam ak ci fonk kilifa diine yi mu ne Dakar dëkk maam xaaj malik la mu a dakaar dëkk sëñ maam Nourou Diinal Nourou Nourou Tall Seydou Nourou Tall mu ne Dakar dëkk Laayeen la yii yëpp ay ay kilifa leen mu ne seen tool la tool woowu du ko laal moo taxoon mosu fee sàkku zaawiya mosu fee sàkku jumaa fii këram la woon fii la doon wàcc fii la ko daal taalibe doon fekk euh, sama waajur Cheikh Mamadou bokk na si ñu fi njëkk a tabax benn néeg muy sama waajur Cheikh Mamadou Hadi taarix bi ne na ko 1900 euh, moom ci année 75 yi la ko commencé tabax gannaaw bu bàyyi làqoo léegi nag jamono di dox di dox di dox ba siñ waajur Cheikh Abdourahmane Ibrahim ñas moo soppi kër gi daf ko muy zaawiya ci lu yàggut lu tax mu soppi ko daf ko zaawiya mooy na taalibe yi dañ fi daan daje. xajatuñ ci kër gi kër gi xat ak ñoom lool mu ne daal mu sàkku ndigal ci xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mu jox ko ndigal mu ànd ceeg taalibe yi nga xam ne incha allah ñoom xal neen leeral lu bëri ci histoire kër gi ndax histoire kër gi moo jiitu sama juddu lépp luñ fi wax rek dañ ko dégg wala ñu nettali ñu ko 1957 euh, daal ci la bàyyi jënd. fii gannaaw loolu nag yàlla wërsëgal na ko ay terrain yu bari dakaar waaye terrain yooyu yëpp mus tax xalaat tabax ko wala mu def ko zaawiya ndax lu ma la ko waxee woon ci njël rek dafa wax na ne fii barab yi ñu tedd leen ban eh, seen tool eh, bay na bay nañ ko bam mu set amul dara luñ fi bay ban na leen ko bàyyee moo taxoon mu tukki nag ci àddina bi du dem fu ne ngir tasaara diine ji ndax jimine ji amagul senegal rek am na yeneen réew yu ko soxla moo tax mu ne alawtul bihaara zaxiraati wa innani alawtul qura wal mudna bal hal jibaala aruum ridal baali li nusrati diinihi wa ublizu lil jiili jadidi mithaala dinaa tukki si jéeri ji dinaa tukki si jaww ji ñu ne ko ngir lan mbur a ngir wasaare diine ngir wasaare lislaam waaye ngir wane exemple ëllëg génération bii ji ñëw pour wan leen nan la ñuy tegee seen tànk ak naka la ñuy def loolu moo nekkoon tànkam yi waaye tamit ku xam ne bàyyi dundam yëpp daf koo jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jox diine ndax wax na na xayaati taxlu bil mahabbati wa tuqaa wal mawtu yaxlu bi shuhudi kadaliki sama dund dafay neex ngir bëgg yàlla ak yonentam ngir aw seen bëgg mooy jaamu ko bañ kaa sàkkal bokkaale waaye tamit sama dee dafay neex ngir jonog jëmm yàlla ji musuma dégg ku wax ne sama dee dafay neex ku dul bàyyi mu ne deem dafay neex ngir jonog jëmm yàlla ji ku ne xam na ne dee euh, xamoo lay fekk ñu ci bëri waaye moom imagine na xam na ne moom dundam gi daf koo jeexal ci dund ci bëgg yàlla ak yonentam ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi ndax ne wax na ne alayhi salaatullahi dumma salaamuhu li tamla min xubbil amini jawaarix yi maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi julli goo xam ne amul sëlmal dappet waaye dama bëgg yàlla may ma sama mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa fees dell sama jëmm ji sama mboole mi cër yi bu bàyyi dara lu dul dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi loolu yàlla may na ko ko moo tax mu ne bëgg naa yonent bi mbëggeel goo xam ne ne kenn mënumaa dab ci mbëggeel ci loolu loolu jamono wane na ko ñu ngi sant yàlla bu baax ci dalal bi nga xam ne ñu ngi leen koy dalal gannaaw kàddu gi dañ koy jox ñi nga xam ne ñoo fi ne euh, ñun euh, daa yaakaar naa fekk moo ñu ci boole ndax dëkkuñ Dakar dañu ñëw rek ngir jégal bokki taalibe yi guddig laylatul xadri gi nga xam ne Euh, moom la ñu amal fële ca Kaolack muy le 6 avril occasion bi ñu profité yëgal ko mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi loolu moo tax ñu ñëw yëgal mbokki jullit yi euh, événement bu mag boobu ñu bàyyee incha allah oustaz Muxtaar Ñang mu mottali taarixi euh, zaawiya bii nga xam ne dëgg-dëgg moom fii la nekk fii la dëkk xam na ci biir ak biti ñu koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq ak taysiir waaye di profité ci occasion bi di nuyu alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di nuyu ay rakkam yëpp waaye di nuyu imaam al akbar cheikh Ahmed Tidiane Seyd Ali Cissé waaye tamit di nuyu naataqa rasmi bismil hadara cheikh Mouhamadul Mahi waaye di nuyu mbooleem kilifa yi diine yi ñu nekk biir Sénégal ak mbooleem xalifa généraux yi di ñaan yàlla jàmm ci Sénégal. ñu ngi dëgmal ay élection ñu ngi ñaan yàlla jàmm te am ne yaqin na jàmm jooju rek moom la ñuy yàlla jox ngir barkeem ñi nga xam ne ñoo fi tëdd seen maam yi ak seen baay yi ci ñaan yi nga xam ne ñaanoon ne ko te yàlla du maye ba pare di nagu inna allaha la yastaxyi an yadaa fi makaanin baraka wa yantaza minhu yàlla rus na daf ci barab barke ak nangu ñaan ba ñëpp xam ko fu mu jëlee ko ñu ngi ñaan yàlla ñaan yooyu yëpp yu mag yi doon ñaan jàmm ci senegal yàlla na ko yàlla gën a dëggal ci jamono ji nga xam ne moom lañ ko gën a soxlaal <laughs> euh, li ma mës wax ci li jëm ci cheikh al islam bëri na lool lu ma ci gën a marqué mooy liggéeyal ko liggéeyal Baye lu am solo la surtout ma sama waajur ji nga xam ne moom laa gën a jaxasoo muy papa Cheikh moo ma yar mooy xalifa bi nga xam ne moo gaañu avancé Cheikh Mahamadou Mahi papa Cheikh yàgg na maa wax ne buntëb xidma tëjeeku na tudd tëju mukk te Baye dafa wax inna alladina xadamoo nii naalu muraadahum saaadatun wa maalu képp ku ma liggéeyal jot nga sa càkkuteef képp ku raw rek foofu nga rawee moo tax liggéey moo am solo surtout ma liggéeyal wàllu yàlla boo xam ne yàlla gërëm na ko euh, bunt yu ma wax bëri na lool waaye buñ ci doon tënk rek buntub liggéey ak jaamu yàlla ak góorgóorlu daf ma daan wax tamit ne wax ko ci mbooloo ne bàyyi mu ne payam bii ci ñeent lañ ko samp ci jàng ak jàngale ak jaamu yàlla ak liggéey képp ku ko def rek yow am nga saadatu daara yi ni mooy teraanga àddina ak alaaxira ci loolu moo tax yàlla sàkkuñu jàng jàngale jaamu yàlla liggéey yàlla na yàlla saxal ci loolu. la Niass Koumba Abdallah Cheikh waxtaan bi am na solo gis ngeen ko comme ni ma ko waxee léegi rek sët moom mooy doonu maamam euh, moom Cheikh baay euh, macha allah di ngeen ko li mu ñu expliqué euh, ñu taataan nag xol yi mu fees lool tabarkàlla xanaa ñu àggale ki nga xamante ne moom la ñu tàmbale loon rek muy ki nga xamante ne mooy sañ Muxtaar Ñang nga xam ne moom daanaka si ñu nekk si kër gi am na fi wàll bu am solo sëñ bi dégg nañu kilifa gi li mu wax lan nga ñu si mën a dolli. alhamdulilah rabil asalaatu wasalaam ala ñu ngi lay nuyu beneen yoon di la ziyaare bu ñu la nuyoo rek nuyu nanu Cheikh Mamadul Maahi xaadimul umma bu la nuyoo nuyoo nanu imaamul akbar Cheikh Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé bu ñu la nuyoo nuyoo nanu nuyu nanu Cheikh Mamadul Amin mi nga xamante ni moo teewal xalifa bi fii ci dakaar ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yoon salaa di bég ci sa teewaay ndax hasard amul yaay taxawee leelul xadar ba Medina xam naa moo tax sax nga yëngatu ci fan yi ba ñëw Dakar waaye yaa ngi fi dajee tam koo xamante ni laylatul xadar wala boog li muy tàmbali fii laylatul xadar la koy mottali muy Cheikh Ousmane Niass mi nga xamante ni baayam moo doon baram assa maamam bokkoon ñi nga xamante ni itam doon doon jàngale di euh, jiite alxuraan ci Medina bàyyi ci jamonoy Baye. weeru koor bu nekk dafay jóge Medina ñëw fii di nu jiite naafila bi Baqara ba Naasi weeru koor lañ koy clôturer mu dellu Medina Baye. imam bàyyiloo mu ngi ci kaw dafa am ngànt moo tax wàccul moo taxoon ñu ne rek ma insisté woon ni na nga teew ci teewaayu imam bu ko defee eh, ñu ñu ñu mën a waxtaan ak suñu mbokk 7TV yi. ni nga ko waxee noonu la kër gi kër la woon rek comme këru or kër parce que euh, danga ko dëkkee woon waaye nag di fi dundal. Euh, di fi jàmm yàlla euh, fële xale yi tëdd ba ci ba ci ba ci fond bi couloir la woon boo xamante ni dafa nekk en plein air dañ daan wasifa ba ci yàgg bu ñuy wasifa ci jamonoy nawet buy taw dañuy jaw ak suñu mbalaan daw dugg ci biir àggale suñu wasifa loolu yëpp am na fi waaw mujj gi kër gi muy dem di dem di dem ba comme xat non seulement xat waaye li sabab sax transformation bi parce que fii ñu toog nii moo doon néeg bàyyi bu njëkk fi moo doon néeg bi salon bi moo nekkoon ne le mu nekk euh, ndax naar yi fa la leen daan dalal mujj gi bi kër gi xatee xam naa bàyyam euh, moom la sëriñ bi doon junj ñu xar fii benn bunt boo xamante ni salon la fële ngeen gis ci gannaaw moo doon néegam bi nga xamante ni mooy néeg mujj bi. néeg boobu nag moo amoon problème di xaw a seen tuuti ak érosion bi ndax moo xawoon a yàgg ñun dañuy defar étanchéité bi nan ko tabaxaat. bi ñëwee waxtaan ceeg jamono président Malo kamara ñu ni dañuy euh, de euh, yaatal kër gi wala defaraat ko ba dootul ba mu ba mu mucc ayib euh, ci la wax ji daal di dem ba ñu ni toog ci nopp Cheikh Abdourahmane Ibrahima Niass ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla mu ni daal fii duñ fi defar dara kon dañuy daaneel lépp tabaxaat ko ci la idée bi ñëw mu dem ci kilifa yi tàggu leen ñu jox ko ci ndigal mu daaneel kër gi tabax ci kaw néeg yi nga xamante ni moo nekkoon fii mu yéege ko ci kaw jël ñi fi nekkoon transféré leen ñu def ko Zawiya ba fi mu nekk nii. kon fi ñu toogee nii moom fii moo nekkoon néegu baay. moo doon néegu baay bu njëkk bi nu waaw ci ci fii ñu toog nii à l'instant moo nekkoon néegam euh, fële. fa la ala jibril bi nga xamante ni moo doon chauffeur fëram di àndandooram fa la daan gaare idée bi mu saan a ñëw euh, fii moo doon salon bi beneen néeg moo nekkoon fii foofu la Abdou Diop mi ko fi nekkaloon foofu la dëkkoon salon bi moo nekkoon nële fële na couloir la woon ak beneen couloir cour bi nekkoon nag ci biir nekk cour bu mag xam nga kër sika bi dañu xaw a rëy bi ñu ko yaatalee nag ci lañ def fii benn salon ci jamono ansaar bi ñoom ñoo ko liggéey ak euh, euh, euh, président mën ñang su croix wala lu ko jiitu astafurlah lu jiitu sax président mën ñang ci lañ ko defee benn salon fii ak néeg bi nga xamante ni moo doon néeg mujj bi nga xamante ni bi mu fiy jógee di dem Londres di wujji boromam kër gii la mujj fanaan ci néeg bee la mujj fanaan soog a dem wujji boromam. macha mu nekk lu am solo fi ñu toog nii mu mujj nekk mimbar bi nag nga xam ne kon lu lu lu kéemaane la. waaw lu symbolique la <laughs> lu symbolique waaw du nu wax bëgg nu wax sax ci xam-xam waaye gis nga euh, mag ñi euh, euh, seen mbir yëpp mbóot la yonent bi sallallahu bi mu njëkkee dem màkk ba mu gàddaay ba mu njëkkee la mu njëkk a samp jumaam ja fi gileem ga njëkk a goor moo doon juma fa la fa la nekkoon juma ji feneen fii ci fi mu mujjee samp fi mu goraat. mooy euh, néegu yàlla bi waaw kon ñoom bàyyi ba mu euh, sampee Medina la mu njëkk a tracé mooy euh, néegu yàlla kon fi nga xamante ni fa ngay fanaan di fa yeewoo dem ba nekk barab boo xamante ni dana fay jaamu yàlla loolu lu rëy la borom xam-xam yi ñoom xam na ni loolu li muy junj yëpp ñuy sant yàlla ci loolu kon euh, bàyyi léppam ay junju la lépp loo xamul rek bàyyi léppam benn góor moo ko daan wax loo loo gis ci bàyyi xamal ko rek mbaax goo xamul la waaw waaw léppam junj la waaw vraiment fii moom kër gi ku fi dugg rek ci xam dangay danga di nga xam ni këru jaamukatu yàlla la woon këru barkeelu la këru sant yàlla la kilifa bu nekk fekk na ko ci néeg bi boroom xam-xam bu nekk bàyyi euh, euh, Euh, dalal na la ci néeg bi euh, waarit yu nekk fekkan bi kël na ko ci néeg bi waaw bind na fi lu baree baree baraan ci néeg bi la ko bindee kon kër gu barkeel la. kon ñu ngi leen di waaw loolu moom ñu ci sant yàlla. am na solo xanaa ñuy jox euh, bëgg baay rek mu sànni si ñaari kàddu moom waaw bëgg baay. bëgg baay moom dama bëgg parce que benn taalibe baay amul ngant pour ñëw fii di dundal kër gi. ma nga dëkk ba Kër Masaar fële fu ko gën a sori Tiwaawan Pël bis bu yàlla sakk fii lay jullee fii lay wasifa soog a ñibbi kon ñi jege ñëpp amuñu ngante nii kër gi dafa nii wala dafa laa war nañu uh, teew di dundal kër gi parce que moom mi ko xool ci moom rek vraiment dootoo am ngant kon ñu ngi lay jox kàddu gi Cheikh uh, ji nga sant ñaari kàddu. asalaamaaleykum. gannaaw bi yàlla junni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Mawlana na shekh Tidiane Chérif radiyallahu anhu sant Mawlana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo xalifa eh, Cheikhu Tidiane di gërëm sang bi ñun taara jeetaay bi ak sama taan ñaa ngi ubbi waxtaan bi li ma ciy dolli du bari ñun ci jamono dañ ci doon nekk buy taw ñuy toxu ba 1986 ci suma teewaay man ci bunt bi suñu baay di suñu xalifa Aji Abdullah xalifa ëbalan mu baay dajeeg ñun fii bam dajeeg ñun fii tamit ci minbar bii ñu bii ñu toog nii foofu la toogoon man ma toog nan ci buntu bi ndax mosuma nekk ci buntu bi rek la ma di toog depuis 86 bi léegi ba ñu dajeeg ñun lam ñu wax moo di euh, yéen a fi ne di njabootu baay tasaaroo bi ngeen tasaaroo te kenn xamul leen moom laa bëgg a dindi tey ndax ay nitu dina ngeen di nekkal te su ngeen tasaaroo nii dinañ leen yomba dugg waaye suñuy romb fii autorité yi di romb fii ngeen fi daje ngeen di mbooloo ñu ne kii ñii njabootu Baay Ñas lañ kon ñoom ñëpp dinañ leen bàyyi xel waaye dama bëgg nag loolu mu ngi woon 1986 dama bëgg nag jox leen digal ci kër gi ba heure wasifa bu jotee na ngi fi daje wasifa xataa juma bu jotee na ngi fi daje def leen xataa juma su ngeen xataa juma ba pare ngeen waxtaan ci yàlla kenn ku ci nekk ñaan na sa borom ngeen dem lii maa ko teewee gannaaw loolu dama lu Alaaji Mor Ñang ak Jéeri Dramé yal na leen yàlla yërëm te yéexee ñu te xaar leen laa jànn Aji Abdoulaye Geesu ne moo ñàng ani maam Ousseynou Diop mu ne maam Ousseynou Diop mu ngi Malick si mu ne su ngeen fi jógee na ngeen dem ci maam Ousseynou Diop ngeen ne ko naa ñoo fi di di jiite booba baaba mu nga jëdda mu teg ne baba nag mu nga jëdda waaye dinaa jokkoo ak moom saa yu mu fi ñëwee di secondé maam Ousseynou ci yéen di man maa ko fekkee mën naa ko wax te mu leer nañ kon ñu di tamit yàlla dimbali ñu ñu dégg ndigal di def di góorgóorlu di góor góorlu su doon taw ñuy bubb ay su suñu si jaata di bokk fu ñu ndox bi bañ a laalee comme ni ko sax Matar waxee Cheikh Abdourahmane dégg ko Ansaarudin defaraat daal rek lañ waxoon ñu mujj koo def mu taaru nii àddina gi yëpp xaj na ci kon daal sëriñ bi ñas sëriñ bi ñas nag li jotali suñ ziyaara Cheikh Mamadou Maay xaadim umma jotali ñu suñ ziyaara moom Mamadou Makki ak Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ñun daal ñu ngi nii di góorgóorlu ngeen ñaanal taalibe yi warsak bu ñu xidmaa lay bàyyi comme tudd nga xidma moo tax ma àgg foofu ñaan lañ leen taalibe yi warsak bu ñu xidmaa lay bàyyi ci projet yii ak seen yéen ñii seen i njaboot. jërëjëf wax ji rafet na xanaa imaam bi nga xam ne day jóge moom itam euh, chaque koor gi mu ñëw fii nga xamante ne moom mooy ndakaaru jóge Kaolack ñu bàyyi ko mu sànni si kàddu rek Niass Koumba Abdallah sëñ Ousmane Niass ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu waa Kaolack. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala euh, soxna si ñu lay dalal ñu lay fay nuyoo tamit di wax marxaban ci liggéeyal bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal diine ji di nuyu tamit euh, sa patron Maymuna mi nga xam ne ni jigéen la euh, jàng fi mu war a jàngee ba dem ba taxawal télé bii nii ngir liggéeyal diineem ngir liggéeyal réewam sëriñ bi ñu ngi lay nuyu euh, di lay wàccee sa wàccuwaay jëkk loolu ñu ngi nuyu suñ xalifa bi comme ni ko ñëpp waxee Pape Mahi di ñaan yàlla guddal fanam may ku wér yàlla taxawu ko mbooleem njabooti Cheikh Ibrahima Niass gi ak njabooti Seydi Aline gi ñëpp waaw man de man maay Ousmane doomi Barxam Alaaji Assa Alaaji Assa mooy suma maam Baram suma maam mooy suma Baram Alaaji Assa mooy suma baay Alaaji Assa mooy ki nga xam ne bi baay di sos Medina moom la óolu ci doomam yi pour mu jàngal leen alquran bokkoon na ci ñim óolu woon pour ñu doomam yi jàngee fa alxuraan Alaaji Assa moom bokkoon na ci alhaja suma moo nekkoon kër bàyyi ci boppam fa la daara ji nekkoon mu fay jàngale alxuraan bi kër gi xatee la ko bàyyi génne yóbbu ko kër papaay kii kër papa fi daara kër papa daara alhaja sa nekkoon na fa gannaaw gi la ko fa bàyyi toxal indi ko kër yaa uli gannaaw gi la ko toxal foofu mu nekk kër yaa uli googu nag dugal ko foofu mu ko dugal mu nekk ci jàng ak jàngale ba yàlla def mu génn àdduna bàyyi fi doomam Baramala Diassa Baramala euh, Diassa nekk jàngale jàngal ñu bari ci topp baay gi ay taalibe ñii jugee Niger ñii jugee Cameroun ñii jugee Nigeria mu jàngale na alxuraan bañ mokkal alxuraan mu dem génn àdduna ne nii may wax daara ja suñu mag Babacar moo fa ne kii nii li mu oote ci laylatu qadr googu Babacar mooy mooy bokk na ci sëriñ daar yi nga xam ne ñooy taxawu kaamil yi nga xam ne ni Cheikh Adami Cheikh Baye Adami mi ngi koy jàng dinaa ci delluwaat man l'an 2009 la ma dañ ma indi fii pour ma ñëw naafile ci comité eh, ci taalibe Baay yi nga xam ne ñoo nekk fii l'an 2009 la 2009 boobu ba léegi chaque weeru koor damay ñëw ñu koy naafila la kook suñu bokk taalibe yi ñu ciy def lu ne nag di ci def seeni alal di ci def lépp maa ngi profité di nuyu soxna si nga xam ne nii. Cette TV et AZACTU vous souhaitent un bon Ramadan.